téléspectateurs yi ñuy seetaan à Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk di leen wax dal leen ak jàmm ci seen journal de ren comme ni ma leen koy waxee nii lay demee lépp lu tàbbi ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaanee faram-fàccee ko baaxee leen ko mais à chaque fois rek mu ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Babacar Diop l'incontournable. <laughs> maa ngi lay fay soxna Ami juuf ci loo nekk. sant suñu borom. nuyuwal la belle maa ngi nuyu la belle-fille. Ami la belle-fille. Ah, du noonu tey nangu na. kon noonu la def maa ngi ñu ngi suivi ci Equivox TV yëpp di leen ñaanal jàmm. Mhm. di ko sàkku ci ñoom. Mhm. di ñaan yàlla korite gii nu dëkkmal. Mhm. yàlla nañ ci dugg ci bisimilah waxee kontaan na korite bi ñu dënnuwee bi alamin waa du mën a ñàkk parce que tey korite gi faw ñu tudd ko ndax lii tax. Ah, dañoo am gan lii ci sama ah. kanam waaw. dañoo am gan. ah lii kat ku ko gis sa xel dana dem ci korite. du mën a ñàkk. baax na ba ca korite ga. <laughs> ba di yegg caag jàmm. baax na ñu dem seetaani revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 11 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko. yëglekaay bi suñu làmb nag moom tey boo bëggee dégg dëgg fa mu xëy ñëw ci xëtamu njëkk maanaam Gris Bordeaux troisième tigre de fas la nu xëy wan ci aw photo mu gàddu ay sengoram sotte comme soowam di tuus wala boog di laggu di dem yëglikaay bi daal lam nu xëy xamal daal ne na giri ñetti mbir ñoo koy xaar ci yoo xam ne ni maanaam mooy jàkkaarloo bi mu war a jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 ñetti défi yoo xam ne daal fi mu nekk nii yu mag a mag la yoo xam ne mu ngi taxaw jonn ci kanamam mu war ko lijjanti ngir nag ki nga xam ne nii maanaam mooy mu mën a regle daal digganteem ak Balla Gaye yëglikaay bi ne na bokk na ci ravance mille revanche 2018 ba mu jël ko ndax ku ne xam ne ne loo ci mënti dégg 2018 Balla Gaye 2 da koo gagné woon ca stade Léopold Sédar Senghor ñu ne déet ne waay leneen loo xam ne yëglikaay bi gis na ko ne na diggante ma Tafa Gueye tamit ak Balla gay numéro 2 ku ne xam na ne ba ñu bëree Balla da koo daan te giri mbir mooma itam lu mu war a régler la suñu làmb ba tey mooy wax leneen loo xam ne giri war na koo arrêté war a mu régler ko ci kanamam ak Balla gay numéro 2 bokk na ci maanaam Balla gay numéro 2 ba mu commencé di dugg face ba tey maanaam daal mbër daanu ko fa te comme fa dajeel daan na la dem sa yoon wala boog mu daan la demu yoonam moom Balla Gaye yëg liggéeyam ne ne kon ñetti mbir yi moom mu ngi xaar Gris Bordeaux ci taabal ji ngir ay dossiers yi la yoo xam ne ni digganteem ak Balla la la moo tax yëg likaay bi tudde ko dossier yoo xam ne wala défi yoo xam ne yu diis a diis la moom sunu làmb moo gisee noonu ba tey Balla Gaye numéro 2 moom mu nga xam ne nag moom la Gris Bordeaux war a lijjante ñetti mbir yu li dox seen diggante yëg likaay bi ne na Balla daal moom boo bëggee dégg-dëgg maanaam atum yàllaam lëmm sañe na ko fa nga xam ne ni nag moom nga xam ne ni moom moo nekk ca France ngir nag fas yéenee daal waajal boppam nam ay loxom aku yaramam ngir nag bu jàkkaarloog ñetti adversaire yi mu defanteeg ñoom ba mu sab-sab yëg li bi ne ne loo ci mën a dégg daal Balla Gaye numéro 2 moom ah démb daal mooy ay séance yu njëkk yoo xam ne commencé na ko ci wàllum entraînement maanaam daal atum yàlla la signé fa nga xam ne nii moo di ca INSEPS bu Paris keneen koo xam ne nii Balla war na daje ak moom muy Bombardier yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom ak ay rakkam ya ca mbuur moo xam assurance la wala paka la yëglikaay bi ne na daal soo bëggee dégg-dëgg VIP yooyu nga xam ne moom ñoom ñoo nekk ca mbuur di ay mbër yu mag yëglikaay am na na boo xoolee ren ku ci ne rango nga combat ndax bu dee Bombardier ku ne xam na ne 31 juillet mook Balla Gaye numéro 2 ñooy jàmmarloo fii ci arène nationale ñu ne déet na waay pakala ci weeru juin tamit war na jàmmarloo ka nga xam ne nii moom moo di forsa bu Fass assurance tamit ku ne xam na ne lu yàggul dara boog wala bu korite gi passé ca Thiès ku ne xam na ne si di jaxate jox na ko fab komba moom assurance mu war na daje rek Gambia ma ngeen xam ne moo daan ànd ak Mohamed Ndaw Tyson yëglikaay bi moo xëy na tey ñëw ci lu mel noonu dina ko wax keneen koo xam ne nii yëglikaay bi wala ñeneen ñoo xam ne nii yëglikaay bi xëy na ñëw ci ñoom muy ñaari mbër yoo xam ne yëglikaay bi jàpp na ne day ah ay mbër lañ yoo xam ne day seen kaa jafe naa lijjanti lool muy rëg-rëg mu caaroy ak ka nga xam ne nii moom moo de faraamu Parcelles Assainies yëglikaay bi moom la mu jàppe sax rëg-rëg maanaam ak dënn goo xam ne daal moo nekk ca caaroy te ku ma wàcc ci sa kaw da yëg ne wàcc na ci sa kaw bu baax a baax yëglikaay bi na boo xoolee ba mu commencé ba tey ci lamb bi dóor amagu ci defet treize victoire daal dajale na ko moom rëg-rëg moo tax yëglikaay bi xëy tey ñëw ci moom yemu ca ka nga xam ne ñoom ñaar daje nañ ci lamb simple ba tàyyi muy fara yëglikaay bi na na tamit moom fara moom itam boo xoolee daal yoon wu rëg-rëg aw ca la tegu ndax nag boo xoolee yëglikaay bi le démolisateur de Parcelles Assainies daal la ko tuddee wala le démo le démolisseur boobu de Parcelles Assainies yëglikaay bi daal lam nu xamal na Franc soo bëggee dégg-dëgg daal lu ne ci yoonam bu la fa fekkee da la fay dindi jàll sunu làmb moo xëy wax loolu xamal nu ne nag neuf victoire dajale na ko moom Franc yëglikaay baa xëy wax nu ko moom moo moomu nag démb xëyoon na de wax daal ci sunu làmb ne combat mag te kii nga xam ne moo di Tyson 2 ci xolam la ko téye maanaam daal na ko leer ne moom Tyson 2 li ma jàpp ci sama xol la man combat bi fu sori la yegg ci man mel ni ki nag waxam jooju moom Franc démb xëy na am tontu bu leer nañ ka ko tontu nag du kenn ku dul ko mu seqal bés ba wala kam doon waxal di Tyson 2 Tyson 2 nee na ko day yow yaa xam bu la neexee nga def ko ci sa xol combat bi ndax loo def loolu itam du neex ci yow ndax nag jàppal ne amu lenn loo xam ne ni danaa la ko yombalal luy niroog kado wala luy nooy ci sa kanam Tyson 2 nee na ko lépp day teeng te itam boo yaakaaree ne day yomb ci yow na xam ne combat bii nga jëm ak man billaay boo ci jógee ah da nga xam ne daal ba si góor moo koy bay yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu ko ñaara ngi ñoo xam ne nii moom maanaam fan yi seen coow bëri woon na ci yëglikaay muy jax ak jamaïcain ci datu le 16 mai fa nga xam ne moo di ca Fatick yëglikaay bi nag dana boo bëggee dégg dëgg daal ah démb Matar Ba ma yor réew mi daal tracé na daal ci côté Jamaïque maanaam Jamaïque daal maanaam kon dat ba moo ko moom moom la nu ko jox moom nag mooy tëgg drapeau monsieur le ministre Matar Ba yëglikaay bi wan ñu Jamaïque ak nga xam ne nii moom moo di ja jax ñoom ñaar ñu lëngoo waxtaan ca bureau ministre ba bay reetaan muy loo xam ne daal lu rafet rafet la sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne ni mu ngi ci biir yëglikaay bi di sunu lamb moo xam ay lambi simple laak yu mel ni kii noonu bu dee fa nga xam ne ni moom moo di ca fim la la yëglikaay bi ne deux million daal lañ fa teg le 14 jàpp la 17 mai yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko lul seeseen tamit bésu korite tega ak bubët bët setee am na fa ñaari millions yoo xam ne teg nañ ko fa mu di ak ndewenal yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu fa nga xam ne nii tamit moom moo di ca njaay njaay Fatick wala ca Fatick itam yëglikaay bi xamal na ne ñu ngi fay delloo njukkal maye ndeb yëglikaay bi nee na boo bëggee dégg-dëgg ci samedi jii nu jëm daal cinq cent mille francs teg nañ ko fa fa nga xam ne nii tamit moom moo di ca sum le 16 jàpp la sat tamit waaw boo bëggee dégg-dégg maanaam mille francs teg nañ ko fa am na mbër moo xam ne nii moom étudiant la ne kay wax moom que mu koy xamal la daal jàpp ne mooy royukaayam mooy Mohamed Ndaw Tyson damay dem record record moom ba tey jax ak jamaïcain ñu nga fa mel ni ki nag bu bëggee dégg-dégg daal la ñu confirmé le 16 mai moom mooy dat ba jamaïcain moo ko moom yëglekaay bi ba tey wan ñu ñaar ña ca biir yëglekaay ba muy jax ak jams mu mel ni ki ñoom ñaar photo wu mu mel ni ki nag coow lam doon ba rek warante wa yépp maanaam mbir ma ci waxtaan la mujje ginnaaw ay jàmm yëglikaay baa xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom ci ay xat-xat la nekkoon yëglikaay bi mel ni ki nag olof a ko wax loo muñ rek day jeex muy sunu maam lamin Diack ma ngeen xamoon ca mbiri deuxième ma la bokk ca mbir ya nga xam ne nii moo jëmoon ca mbàllum athlétisme ma nga xam ne moo ko taxoon ñu tee ko ca réewum Paris la France maanaam daal nekkatu kon ci liberté wu boppam mu mel nekki nag mbir yooyu fi mu nekk ni jeex na takk ba démb ñëw na ci réew mi nga xam ne ni fi la dëkk muy Sénégal mel ni que kon daal mbir ye jeex na donte metti woon na lool Sénégal yépp a nga ko doon ñaanal ngir mu génn ca lool mu mel ni ki nag génn na ca boog ba dugg si na Dakar démb ñu gis ko ci aw photo mook ay doomam yu jigéen mel ni kon daal lan koy ñaanal mooy mu gudd fan wéeru lool ndax nag ku ne xam na ne lu toll ne athlétisme réew mi Sénégal jiite ko di ab africain ah loo ci mën a dégg am na solo waaye àddina moom la ñuy wax rek mook weeru koora yam xulli feeg dog jotul juubu weesagul maanaam feeg yaa ngi dund dara paaseegul kon Lamine Diack ak ku ma mën a doon yàlla na yàlla defal ñëpp gudd fan may ñëpp wér gi yaram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo suñu maam Lamine Diaga yal na yàlla guddal fanam Babacar tey kii bi dafa yànji dem. <laughs> plateau ah, plateau bi dafa yànji tey. waaw parce que nag li ko def. Hmm. xam nga ne butéel bi nga jaaxaar lool. Hmm. butéel bi ñu ne zone nii. di ma saf or. ah di la saf or. Hmm. j'adore wuyoo na trois. déedéet kay moo nu rax tey. xam nga diw gi nag waxoon naa leen ko. mooy diw gu baax gi de amul sax ma dem te ñëw. dafa gën. daan naa ko wax ci ay reportage ne bu leen ko jaawale mhm. tey la nangam tey la nangam mhm. waaye li jarta jaawale yi ngi nii nag am na solo jéeg bu ci bëgg sa jëkkër gën laa nopp mhm. sa korité gën a neex ba alaa daw mi bu ci bëgg a jël pee nekk numéro un number one ah. huile Zador a ngi nii am na macaroni am na spaghetti am na couscous am na vermicelle. moom daal au complet daal. dafa ah déet lépp lañ lay tegal te li ma ci neex. waaw doo ko rosi muy fuur. déedéet xeetu gerte gi du la xeeñ. bul sonal sa bopp. baax na rek xam nga waaj. en tout seet na sell na daal. dama ciy seetu nii di ci gis sa bopp. da ngay gis sa bopp déggoo li ma la butéel baa baax ami. te te yemul ci un litre de. déedéet am na ah, cinq litres. am na yu ndaw a ndaw mhm. loo ci bëgg ñu jaay la maanaam. j'adore pour que maanaam ñëpp mën koo am. Mhm. moo tax moom nag la ñu àndal tey naa ne nag képp ku la fekk ngay xeex ah. mu jàppale la ca xeex ba hmm. bëgg na nga gañe kon sa doro ñëw ànd ak Equivox ak Vox Arena am na solo ah loolu ndam kese lay doon ndax nag boroom kër gi nga xam ne moom moom Equivox hmm. ku ne xam ne ne homme de défi la waaye ki nga xam ne tamit moom mooy borom ABC ku ne xam ne homme de defee tax mu yegg si fii kon li mën a ànd rek kay ànd dërëm ak dërëm eh, li tax boo jëndal tening ravitaillement non lii laa ko mas di jëndal ah, baax na xalaatuma ngi doo xam li tax Babacar ravitaillement bu jotee muy muy faaxar faaxar yi ah, parce que ma ko joxee a nopp <laughs> diggante ba day gën a neex wala yaa koy a nopp waaw man waaw parce que moom la lay jox ah waaw am na solo waaw moom la ko joxee sax moom la ca nekk ci biir yëpp mënuma la ko ah, dafa doy waar <laughs> baax na kon nag ñu di ñu daal di tàmbale uh-huh. eh, tey suñu làmb lañ koy ubbee euh, ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux moom lañ gis ci xët bu njëkk bi moom daal fi mu nekk nii jël revanche euh, fayul ki nga xam ne moo di Tafa Gueye hmm. daal di bal la hmm. loolu la bëgg yooyu trois défis yi daal ñi koy xaar lu jafee koy xaar. mi ngi noonu de. ndax digganteem ak Balla dañu ci jaaroon 2018. Balla gagné ko. ci ay avertissement combat bu metti woon Léopold Senghor. kon defe naa boobu promesse bu mu war a réglé la. Mhm. moom nag ne dina ko réglé loolu la wax. ba ca des mooy. bu Tafa Gueye. nga xam ne Balla Gueye de ku ne xam ne daan na ko. ñu mhm. toog ci fin de carrière u Tafa Gueye. Mhm. la ko Balla daan fii stade Demba Diop. te Tafa ku ne xam na ne. Gris Bordeaux moo nekkoon plom nekkoon lieutenant. ba bi Tafa Gueye wékkee ay jaajam mhm. giri lañ ko ràng mhm. def ko troisième tigre de Fass mhm. kon loolu war na koo lijjanti li ci des tamit mooy Balla Gaye 2 daa yàgg dugg biir écurie Fass ndax daan na fa Papa Sow yaa ngi dégg daan fa Tafa Gueye moom mii mu bëre fa ak moom ñaat loolu yëpp muy ay mbir yoo xam ne war na koo lijjanti kon giri defe naa li koy xaar digganteem ak Balla combat bu am enjeu la jël bu métti méttee métti ay défi yu diis a diis a diis waaye nag làmb la ñoom ñaar ay jàmbaar lañ te am na fu ñu jaaroon xamante nañu Balla Gris moom amut ma dem te ñëw du ma la ne combat jànq la déedéet xamante nañ de kon combat jeeg la bii jeeg bi laayi lay moo tax cin lu mag lay doon cin lu mag buñ ko taalee sotti ci j'adore j'adore a koy <laughs> moo koy togg ku dugg mag yëngal ko. dëgg la combat bu rëy ngay gis. Mhm. maa la wax lii. am na solo bu ñu jógee foofu ñu daal di dem nag ba tey rek ci Balla Gaye euh, daal di na yegg si fële ca INSEP ci ci altine bi. waaw léegi nag daal dina signé ak ñoom contrat annuel. waaw loolu de moo lay wan ne kon moom fi mu jëm da koo ñor. Mhm. la ma la waxoon démb rek olof ma ko xam njeexaat fo foreb doom de la fa sab loxo. Mhm. fa la demoon préparé fa combat bu amoon enjeu si digganteem ak ki nga xam ne moom mooy mbër bi mu ba mu jëmee ñëw yàlla dimbali ko mu am ndam tey bu demaatee signé ñetti contrat solaat daal lam dem fa ñu ne déet ne waaye ñu naan ay 60 jours ak nangam ñu mhm. xëy gis ne signé na fa at mhm. ça veut dire que kon ami ah bala li mu jëm ñor na ko Mm-hmm. waaw daa mel daal moom foyewul bi nga xam ne nii moom la jëm mooy combat xam mm-hmm. naa ko yaakaar na xëy na da koo joxul cër itam daa mel ni moom loolu nekkul ci moom mm-hmm. te itam nag combat yi mu war a jox la ndax combat bu ci ne ci Balla Gaye dafa am enjeu ci moom ndax Bombardier da koo daan nangu roi des arènes mu war a jël si revanche kon defe naa loolu bis du ko gën a rëy Boy Niang numéro 2 seen diggante daf nga doon dégg ay naan la du combat surtout ñi nga xam ne dañuy supporter Balla waru ñoo bëri waru ñoo bëri te xamuñu ne garab ci kaw lay ah, fekkante ba yàlla dogal combat ba tey xëy am. moo tax mu war cee fas loolu défi bu nganda nganda kon kooku waxuma la signé annuel. Mhm. waaye jar jar na sax signé deux ah, ans. ñu ne déet ne waaye nga ñëwaat ci Gris Bordeaux mi ñu mujj léegi. mi ngi noonu muy combat boo di xaar revanche. waaw waaw du. du yomb du mënta yomb. Mhm. mënta yomb. Euh, bu ñu jógee foofu nag ñu dem seeti ba tey Bombardier. Pakal mhm. ak assurance. Euh, journal bi xëy titré ko la grand retour de VIP de Mbour. waaw parce que ñooñu boo nee làmb tey ci biir biir Mbour. ci boppam hmm, Mbour commune bi ci boppam mhm. defe naa ne làmb tey ca Mbour mhm. wax dëgg yàlla la fa mag ña defoon moo nga fa tege ni dege mhm. waaye nag ku ne xam ne ñett ñi dañ cee marqué seen empreinte muy assurance muy pakala mu jiwuñu puso bi mu réer seen mag di Bombardier nag def lu kenn defut yaakaar naa ne foofu wala sax ci làmb Sénégal parce que moo dégg roi des arènes ñaari yoon te doomi mbuur la mhm. kon defe naa tey ah ñoom ñun ñëpp ku ci ne rango nga combat mhm. bomb ball la war a dajeel loolu leer na 31 juillet pakala mii war a dajeek ki nga xam ne nii moom mooy Forza mhm. assurance war a dajeek Gambien ci compte Sidi Jaxate kon moo lay wan ne daal ah ñoom ñamit ñoom ñooñu nag wax dëgg yàlla rango nañ ay combat te ñoom itam actuellement làmbi mbuur ñoo cay VIP loolu la yàlla dogal waaw ñaari xale yi rëg-rëg ak franc hmm. invaincu ñoom daal ca kaw ca kanam rek ndam ndam li daal dañ ko jël bokk ko bañ ne duñ ci maye <laughs> waaw parce que loolu de li ko indi maanaam ñoom ñett ñoom ñaar boo xoolee kenn amagu ci defet mm-hmm. rëg-rëg mu ngi ci treize victoire mm-hmm. mu ci neuf mm-hmm. loolu nag leen na ko prouver ci lu ma gis man man mii dem lambi simple xam leen ci lambi simple xam leen ci lutte avec frappe fekk leen ñuy ne xam naa ne li ñuy def ami li tax Euh, fulla baax maanaam fulla jëñ ko jox ak cir bañ ko jox bokk na ci li tax ba tey xëy na dégg guñ muñal mhm. parce que mbër sa dinay entraîner lool dégg muñal mhm. waaye parce que loolu muy sport waaye nag ñoom dafay maanaam seen muñal ma néew ma doo am ci làmb ndax ku dul mhm. daanu doo amul ci làmb pour man ndegam yaxey jóoba xëy daanu ah. mbër mu ne booye boo de ko xaar waaye xam naa daal ku leen bëgg a daan di nga liggéey loolu leer leer nañ moom loolu moom leer na ma néew ma duñ daanu de muy franc muy rëg-rëg waaye xam naa képp ku pare pour daan leen ah ku la day yomb day caaxaan liggéeyal yokk sab liggéey parce que ñaar lañ ñoo xam ne am nañ fulla bëgg nañ li ñu def te gëm nañ ko Ami Diouf te loolu dafay dimbali doomu aadama des fois ay mbiram mhm. hmm. ba tey ma des ci franc boobu nga xam ne ay ay ndam la làmboo macha allah waaw ki nga xam ne moo di Tyson 2 mu ngi koy avertir di ko dànkaaf nee na ko boo yaakaaree ne combat bi hmm. cadeau laa la koy defal <laughs> waaw te du yomb de da koo tontu kay <laughs> Tyson 2 kay daa xëy tontu la ko wax mhm. du am cadeau de mhm. ndax Tyson 2 mii loolu la waaye mënta wax mooy franc mi am na combat bu diis nag waaw ah, ndax Tyson 2 mbër ñaari defet lam ci làmb suma juumul mooy Elton ak guy gi daan na fi ay ay mbër waada assurance mi may ngay gis daan na ko ca Fatick mm. yaa ngi dégg mm-hmm. daan na góor a sob ay ñoom nekku réel mm-hmm. ay ma daan na ay mbër yu mag ay mbër yu marqué seen empreinte yu mën a bëre la daan muy mbër moo xam ne nii kat la xeexkat la te ni nga koy gis mu toll noonu dooleem ëpp na noonu mhm. te itam bëri na mbapat li Franc di def nii mhm. moom def na ko mhm. muy mbapat ndax mbëru tefes la mu nga dëkk ndaayaan kon defe naa ne bu ko nee affaire bi boo yaakaar ne cadeau lay doon yaay ngi nax sa bopp Franc war na ko mën a gëm ndax it nag bis boobu ñoom ñaar kenn bëgg ko cee ñàkk. Mhm. parce que Tyson 2 bu ñu xoolee ci parmé solide avec frappe moom moo may loxo franc. Mhm. kon koo may loxo nag ah. xanaa doo nangu mu di la xëj jël tàbbal ca pax ma bàyyi la fa ah, dem yoon moo tax ma xam ne combat bu metti la wax su arena indi ah, bu leer nañ bu metti sax <laughs> am na bu ñu jógee foofu ñu daal di jàll nag ci gàllaa bi nga xam ne moo waroon am dimanche fële ca Fatick 16 mm. mai mhm. euh, mu nekkoon nag benn polémique bu ci am polémique bu ci amoon ci diggante jamaïcain ak ki nga xam ne moo di Jax finalement nag jamaïcain lañ jox bés bi ah, Matar Ba loolu la tranché. waaw maanaam um, moo moo war a am gala bi dimanche lay am. Mhm. dama naan sax côté boobu man la fait que mu yegg si fii sax. Mhm. man lu ma ko parce que li tax mooy ñoom ñaari promoteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq muy jamaïcain ak Jax doon wax ci waxu dat mhm. ñoom ñaar ñoo bokk association. bokk groupe whatsapp defe naa kon foofu lu mel nii waroon na fa mën a bañ am ba yegg si sax ci ñu naan ministre bi tranché naag nangam sangam. te buru bi amul lu muy tranché foofu te effectivement tranché wu fa pour man. Mhm. li ma am parce que li tax mooy moom ñoom ñaar ku ne da ko bëgg delloo njukkal bëgg ko parrainer. Mhm. loolu nag su amee balaa ngay ñëw ci ministre bi pour man ministre bi mooy mujjee yaa ngi dégg parce fa nga war a njëkkee mooy. Mhm. dem xooli fa ñuy tëggee làmb ja muy stade ba. muy CRC ba. ba am fa lu leer. soo paree nag nga ñëw ci ministre bi wax ko sag delloo njukkal ga ko fas yéenee defal mhm. defe naa ne loolu moom la mooy li nekk ke nag bi mbir yooyu amee moom yàlla dimbali na ko moom xëy na xamoon na loolu mu teel a jóg dem Fatick mhm. am waxtaan ak waa CRC ba ñu nangul ko dat ba xool dat ba xam ne war na ko mën a tëgg ñu jox ko ko mhm. directeur stade ba nangul ko loolu kon administrativement moom mu am loolu loolu nag boo ko amee administrativement yow yaa war a tëgg te Matar Ba ak lu muy nekk nekk ministre de sport ak lu muy nekk nekk maire Fatick am na ay pouvoir yoo xam ne nii du ko mën a forcer kenn maanaam CRC ba am droit ne leen jox leen diw dat mhm, loolu du rôlam mhm. moom li mu xam daal mooy sport la gérer en général mhm. li ci des nag ci biir dafa am ay bànqaas ku ci ne am loo yore ku nekk la nga yore yaa koy gérer sa bopp Sambare Dione moo yore CRC ba directeur stade ba sàmb la sant. ñoom ñoo yore loolu ñoom ñoo jox jamaykee loolu muy datu le 16 bi Jax tamit nekk koo xam ne defe naa tey. ci làmb euh, ku ne gis na. li muy def ci lutte simple. lutte avec mu ngi ciy wane boppam mais lutte simple defe naa na ci bu amee niveau tey. Jax mhm. pour man moo yokk niveau lutte simple bi. Mhm. ndax chaque saison bu jeexee ñu li mu ciy def ci ay day bëri lool. Mhm. kon defe naa moom tamit li mu bëggoon rek mooy bégal waa Fatick delloo Matar ba njukkal mais loolu paasee jamaïcain day mhm. jeexal le 16. Mhm. yeneen data ngi fi. Mhm. am na droit demaat Fatick fekk fa Matar Ba. delloo ko njukkal mais démb li ñu def ni ñu fo gis photo bi rafet na trop. ñu ci delloo njukkal ku mel ne Ndeye Ndiaye Tyson. moom tamit naa ko fa démb muy jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla ku baax la. te maa ngi rafetlu taxawaayu Ndeye Ndiaye Tyson daal parce que nit Federer dafa baax ami. defar dafa xaw a manqué nag Sénégal mais nañuy defar. waaw Sénégal di jàppante beeg waxante bi yooyu amul njëriñ quoi. benn nañuy defar diggante yi. am na solo tàppe xol yi waaw ah. non dabaax ak daan wax te loolu du dañ moo war a am <laughs> am na solo mm-hmm. yooyu la xibaar suñu làmb ñoo ko fasaloon ñu daal di jàll record mm-hmm. mais euh, loolu lañ fa fekk ba tay rek Babacar muy diggante Jax ak ki nga xam ne moo di euh, Jamaïcain waaw mooy li ma la wax mm-hmm. rek Jax ak Jamaïcain daal record ñëw na ci yàlla na yàlla def daal loolu am foofu ah yal na lépp nekk ci jàmm rek te ñoom ñi ànd nañuy ànd te yàlla tax mhm. di waxtaan te te muy dëgg bañ naxante te ku mhm. ci ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom mhm. loolu moo ëpp solo am na solo voilà xibaare jaar fandaar keppe ma bàyyi la nga tàggatoo tàggatoo bi daal mooy xanaa santaat yàlla julli jonante bi di wax waa ABC groupe bi yépp jërëjëf bu ma ko waxee mooy Assis Business Company. Mm-hmm. ñoom ñoo moom moom huile j'adore. Mm-hmm. ñoo moom macaroni j'adore. Mm-hmm. ñoo moom spaghetti j'adore. ñoo moom vermicelle j'adore bi boo jàppee macaroni ak <laughs> a ñàkk diw ga. yaa ngi dégg. te sàgganee ci kanam tuuti da nga gis mayonnaise j'adore. daa gis beurre j'adore. da nga gis yeneen i yeneen i j'adore yi j'adore yi j'adore ndax nag ah, lawtan la rek. Ah. lawtan nag moom dañ koy ñaanal yàlla mu dem am na benn waaye bu ma fekk ci ginnaaw buntu bu léegi mu naan ko awa ba nga ci diwlin sa door bi. laal nga ci diwlin sa door ah, awa <laughs> ah, kooku karawaay kon awa laalal ci diwlin sa door bi. mu ne na nga laal ci sa door gi awa. diwlin bi day tax ñu gën laa nopp day dëgëral. sëy bi de na dëgër këj teneng na ci laal <laughs> ah, yow itam de ci laal comme célibataire nga boo ci laalee xam naa léegi ñu mari la doon dim sa gis naa ko ne ku ma na ko fi ne dim Babacar takkal ami ku ma koy laalal man de est-ce que doo ma ko laalal dem la ci omelette fii boobu waaw de ma ci defaral omelette ah. voilà ci ah, omelette amal tànn naa ñu commencé euh, combat bi <laughs> amal tànn naa di bëggee ñëpp di ziar ñëpp daal ñëpp jàmm di nuyu si caméra bi mm-hmm. bi di mm-hmm. nuyu groupe Equivox TV yëpp mais di kontaan tamit démb def nañ fi émission boo xam ne ñu bëri apprécier nañ ko mm-hmm. muy Arena Hebdo may remercier ñi nga xam ne woo naa leen ñu sol seen dalal ñëw fii muy samay confrère muy ku mel ni Lamine Seck sama seex suma xarit chaque jour ma wax ko lu ne yi ngeen gis may takk boobu ba tey moo ma ko jox ba mu la ko joxee de ci nga commencé takk ay lu ne moo kon xam nga kooku baax na ci man leneen ak leneen loo xam ne démb ñëwoon na fii ñu seq émission bi mhm. ak buur géwél bu Dakaractu suñu grand frère mhm. muy émission boo xam ne ñi ko seetaan ñëpp tey dund lam nañ émission de qualité la mhm. kon Arena Hebdo noonu lay xel di demee nañ ci bàyyi xel lundi bu jot lay xel di doon vingt et lamba kese lañ fi xel di waxtaane Ami Diouf tamit émission boobu di ëttu maam ngeen gën cee bàyyi xel ndax lañ fay waxtaane am na solo dina yeete kon daal loolu mooy Equivox ak yeneen ak yeneen waa kii di soir nu mu tuddati voix du soir la voix du soir sàmb uh-huh. ak ñam koy àndal ñoom tamit waaw ñoom ji bi waaw mhm. du man a ñàkk jërë ngeen jëf di leen jaajëfal yéen itam mbokk téléspectateurs yi amuñ seen fay di jaajëfal xule mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi leen wax euh, ba beneen yoon incha allah j'adore on <laughs>